parce que nag état du xëy rek musoo nekk chef de bureau musoo am secrétaire ñu ne la réew a ngi noonu Sénégal yàlla na ko yàlla musal ci guuta parce que dañuy jël réew mi dénk ko ñoo xam ne ba loolu yëpp bu dajee ci sa bopp au moins nga nekk nit kuy déglu. Mhm. nga nekk nit ku dal nga nekk nit ku teey mais loolu yëpp amul président bi bëgg na ko am na. Euh, euh, am na kii boobu. am na esprit boobu humilité day ah, waxtaan donc day waxtaan loolu la njëkkoon woote. président Diomaye waaye nag. beneen waa ji bi aali kallaj bi. Mhm. moom buggul jàmm buggul euh, euh, euh, lu buggul lu dal buggul liggéey. Mhm. lu mu bëgg mooy woon nit ñi ci defante ci coow ak ci daggasante ci lu ne alors que réew maa ngi noonu. mais est-ce que nit looy woote lu ne dañ ci mhm. am ba doyal. dañ ah am dañ vous allez apporter une réponse appropriée. de dana ci am ba doyal. te lii commencement la rek. mais yéen yéen lan ngeen mënati jamono ji euh, maanaam assemblée bi. ma ne juróom-ñetti fan a ci des. conseil économique jóge ngeen fa maanaam ban pouvoir ngeen di yor pour faire face. assemblée structure la boo xam ne sénégalais yi ñoo ko moom ndax ñoom ñooy tànn seeni doomi mhm. réew yóbbul leen foofu ñu toogal leen foofu ñuy voté ay loi ak ay budget mais du foofu mooy combat bi assemblée nationale. bi dañ fay daje. combat bi ci terrain bii la combat bi ci militant yi. combat yi ñii ay nitu terrain lañ de ñii ay nitu terrain moo leen may li ñu am de seen 54 yooyu bu ñu amoon. Mhm. Sénégalais yi ñi ngi xaar bu ñu demee élection législative est-ce que danañ ko am. li ñuy digaale woon ak sénégalais yi nekkul rek dindi Aminata Mbengue présidente Aminata Mbengue Ndiaye wala dindi président Abdoulaye Daouda Diallo. Mhm. lu loolu moo nekkoon promesse campagne yi. loolu lu tuuti la ci biir donc li ñu diggee woon des na lu baree baree baree bari xam nañ ne mënuñu ko def comme dañuy dindi rek nañuy dindi tali yi nañ dindi pont yi nañu dindi terre nañu dindi BTR nañ dindi voilà donc bu dee dañuy dindi lépp lu fi Macky Sall defoon. Mhm. nañu arrêté yooyu. budget bi ñuy no nekk nii di doxal di ci gundaandaat di ci fay euh, euh, azalaay mhm. di ci fay méridien di ci fay avion présidentiel premier ministre di ministre di ci tukki moom président mu ciy tukki budget boobu groupe benn Bokk Yaakaar ñoo ko voté mhm. alors état continuité la donc kon ñoom ñi fi nekk tey di bëgg jàngal Sénégal yi nangam pourtant dañoo bañoon voté. Mhm. budget alors que ñun indi li ñu budget ba ñu bañ ko voté.